tey victime yi ñaar la bu ci xajee euh, kenn ki euh, kilifa gu mag la ca euh, fële nga xam ne moom mooy Thiès muy Serigne Saliou Touré Serigne Saliou Touré nag ki ko xëyoon tàgge ci groupe WhatsApp yi man li ma gis boog ki ko partagé mooy Ngor sant Mesere dëkk ca Touba Assane nee na naa ko ci seet moo tax du ma tudd tur wi Ngor nga xam ne dafa meew a meew a meew a meew a meew ba waa association meew génne ko ci seen association bi moo tàggee démb Serigne Saliou Touré photo baa ngi noonu ngeen di ko gis mu tasaare ko ci groupe WhatsApp yu bare bare bare daal ni dafa génn àddina joxe xabaar bi gars yi commencé ñaan ñi naan est-ce que ak baaxoon taalib bi sëñ Touba la ñaar ñetti minutes waa kër Serigne Saliou Touré def nañ ab vidéo ñu ànd ak Modou dem xool vidéo bi ñuy leeralee ni góor gi faatuwul te dellu si waat. jàkkee murit te sëñ Saliou Touré. Mhm. mu mel ni dafa am xibaar boo xam ni aw nit ñaatal nañ ko lool te wérul te sëriñ bi mi ngi fi mi ngi ci jàmm. ñun ñëpp noonu gën a ñaan suñu boroom gën ko yàggal te dolli ko ak wér te di ko ñaanal mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi amiin waaye ñoo xam ne daal xibaar boobu lañ bëggoon a leeral ni eh, dara koy def ñooñu ko def itam loolu nañ ko bàyyi voilà kon mi ngi noonu bala ñoo dem ci suñu deuxième élément bi rek kon mu mel ni ak ku mu mën a doon yenn gaaw a tàggee nit yi defe naa wóorul rawatina kilifa mhm. koo xam ne ku ñu xam la ku siiw ci dëkk bi la amoo problème ak jokkoog njabootam boo gisee ñuy def tour ci réseaux sociaux yi ak ni ñu gaaw a tàgg ni béttee nga ko doon wax keroog surtout kooku nga xam ne dafa ubbi moom di tàgge rek waaw yu mel noonu boo ko gisee kon war ngaa teey mais yu mel nii mën naa sax indil cardiaque mhm. ab soppi xam ne tàgge ci réseaux sociaux moom même bu dee li ngay tàgge dëgg la sax nañ ciy sóoraale ñi ko attanul mhm. parce que des fois ni muy bettee ak ni muy yegsee ci yow mën na jur lu bari mhm. te nit ku ne ci àddina daa ko a tàgge waaw mën nga yëg mais tàgg bu ne daa am ku war a tàggee daa am ku war a yëgle mais ña koy def ñekkan moo leen ko sant bu doon ni sax loolu am na parce que am na kilifa fi muy toll nag moom bu fi jógee pour man dafa am ñu tuuti ci yëgle ko wala ñu tàggee ko mhm. maanaam dafa war a jaar ci voie officielle boo xam ne tey ji moo yëgle ni diw muy jóge na fi kon du ñàkk ni sunu waajur boobu sëriñ euh, Saliou Touré mm-hmm. suñu borom daf fi nar a bàyyi ba mu gën fi yàgg yàlla na ko sunu mm-hmm. euh, euh, gën a yokk wér mais tamit yàggal ko fi bu baax a baax mais ñiy génnee xibaar tamit te mm-hmm. wérul li njëkkewul tey de ñu bari naan réseaux sociaux daan am ci rajo yi man mos naa dem ci rajo ñu naan ñu ma sëriñ di ab xalif général na ma bref ko ma leen du ma ko bref waaw ah. ñu ma lan ma leen xalif général bu jugee ci réew mi réew mi du seddee nii mais bi ñu demee quelques minutes après ci lan ne nag te xibaar bi wérul te ca Maroc lañ ko annoncé woon. kon loolu yàgg na fi ci jamono mais xibaar moom jarul yàkkamti parce que yàkkamti ak gaawtu moom rëccu rek lay jur. jarul yàkkamti te nit ku ne daa am ko tàggee kilifa nañ ko bàyyi njabootam. ñu tàggee ko d' accord mm. kon mi ngi noonu sukka mu mel ni euh, Serigne Saliou Touré defe naa koo xam la. ca Thiès mu nekk fa kilifa. Euh, kon ay la yéwén njabootam nee nañ góor ga ma ngay dund ci jàmm son bu dafa am yoo xam ne sax yëfu yabaate la. Mhm. Euh, ndax dafa am loo xam ne euh, nit ñoo xam ne ay kilifa lañu surtout Serigne Saliou Touré mi nga xam ne du génn du wax euh, fulk ba fulk lay génn. mooy li nga xam ne fulk bu fulk njaaree bi fulk noonu bi am ci koor gi mhm. du ci mag la ndax day ñëw ci jour bi. Mhm. ñu ubbi ko après mu dugg kon du génn. ndax mag na mag joo xam mag boo xam ne amul amul du du du génne euh, du ne lii bi ma ko dégg gisee léegi sax dafa maa choqué na wax dëgg yàlla mhm. gisuma ko gis naa ne ñu bari di bind naan sëriñ Saliou Touré yàlla na fi yàgg téwér ki fi toogal ki nga xam ne moom moo di sëriñ Saliou Mbacké mhm. fi nga xam ne moo di ci Ceeskaay benn dëkk ñaari gaal nit ñëpp naw ko mhm. naw fi xam ne foofu la nekk moom mi nga xam ne moo def lii nit ku yabaate la te bu ma doon waa këram ñi nga xam ne ñoo mbokk ñoo nekk ci euh, këram bëgg ko lool sopp ko lool di nekk ay taalibim ñu porté plainte ko def parce que rafetul nit koo xam dañuy ñaan mu yàgg fi loolu te wër mu am fi njariñ yow ngay wër naan dafa dafa dafa nelaw loolu rafetul mhm. beneen bi beneen am na keneen tamit barki démb da koo def ki nga xam ne moom moo di Habib Diop te dafa feebar mhm. bàyyi idi dafa maa metti ba damaa choqué am na loo xam ne kenn ba loolu nanguwul waaw loolu nanguwul ko def sa bàyyi wala koy def say waa kër wala ñu koy def a koo nangu ko def koo xam ni nit ñi dañ koo bëgg nit ñi nit ñi dañoo am ci moom cofeel Sëñ Saliou Touré nit ñi dañoo am ci moom cofeel mhm. ful comme na nit ñi di yàqamti parce que waa Thiès ñëpp a fay dem donc kon moom warul woon def lii. bu waroon war taalibe yi nekk ci dañ koy porter plainte. d'accord mi ngi noonu Adja euh, kon mel na ni kii euh, maanaam jibal xibaar. ak ki koy partage ñoo bokk àtte. man xam nga man j'ai toujours dit sur ce plateau. Hmm. que partage. man man dama ko contre. Hmm. même bu dee euh, euh, information wala nouvelle boo xamante ni dëgg la sax man partage balaa ma koy def li ma ko li moom musuma ko demee li ma koy def bariwul. Mhm. parce que nit mën na mën na mal intentionné yónnee la loo xamante ni avéré wul. Mhm. nit mën na mën na mën na mën na làqu ci caay-caay goo xamante ni lu ko neex lay def. Mhm. donc muy sëñ Saliou Touré yal na yàlla yàggal ko fi. yàlla bàyyi ko njaboot gi mais dafa am loo xamante ni rafetul. Euh, su kaa mi ngi koy wax naan Habib Habib Diop. Mhm. man gis naa vidéo boobu daf ko defaat bërki démb. waaw Sami Dia moomu toujours turu Sami la yor ci TikTok bi. Omar mi ngi naan réseaux sociaux yi waruñu ci tàggee des fois nag Omar. Hmm. xam nga rajo ya doon tàggee. léegi hmm. nag booy xool sax dematuñ ci rajo yi. tàggee doxatul léegi lu bari di tàggee hmm. léegi da gis nit proche am dafay décédé mooy statut wala mu dugal ko Facebook wala mu yóbbu ko TikTok yu bari man rapidité bi sax nangu naa ci mais dafa am loo xamante li nga wax aussi kilifa même bu doon loolu am na kilifa hmm. a koy yëgle loolu loolu je suis d'accord mais daal nañu xoolaat nañ xoolaat li ñuy def hmm. waaw dañ ko xoolaat macha allah jërëjëf alaaji noo gisee kilifa gu mag ga ñu tàgge woon ca Thiès hmm. gaa ñi di ko partagé njabootam nee nañ dara dalu ko nga loolu de lu ñaaw la man damaa xamul léeg-léeg lan mooy sababu maa ko njëkk a wax ak loolu luñ ci. waaw ak di partager euh, rek. lan lañ ci jublu xam nga am na ñoo xam ne sax dañuy partager te xamuñu li ñuy partager xam nga Assane Mbese léeg-léeg mu partager dara nga yaa koy nettali. waaw waaw waaw fekk na ko lii naan lii mu ne ah loolu kañ mu envoyé ñu vidéo boo xam ne xamul la ne ci ah, biir sax lu ne ci biir <laughs> waaw ñu wax ko mu ne ah loolu da yëgu moon woon loolu <laughs> te moom ko partage xam nga loolu ay erreur xam nga kooku moom yow ni ngay dawee partage mm-hmm. yaa ngi xool ba xam lan la sax yow nga mesurer ko ragal nga partage waaye ki nga xam danaan fiw la mu naan fiw fiw waaye nag yàlla dimbali na ko defe naa ñun nag la koy envoyé. <laughs> waaw waaw waaw <laughs> xam naa ay film porno lay statut. kooku ce qui veut dire que am na benn femme bu ko mos a def te femme boobu dafa am eh, jëkkër. Eh, ce qui veut dire que ni eh, maîtriser wuñu sax. kii wuy ma kii nii ci dara looloo kii nii doon partagé photo góor gii. waaw ci groupe yi nii. nga xam ne tur waa ngi nii wan naa la ko. Mm. mas naa essayé ay porno ci wàllu fajar gii. ñun ñoo ko dimbali ma man gis naa loolu. pour te dañuy xam-xam lu. donc euh, yooyu attention de mën ah. nañoo xam sax de. Ah. mais. lan. xam nga dafa am yeneen affaire yu ci ne. mais lan. waaw loolu yeneen affaire yu ci ne. mooy lan xam nga par xam nga estati hmm. dafa am yeneen mbir yu ci ne. mooy tey jii mën naa ne damay estati mën nañu bañ a maîtriser leen maanaam damay estati man ak diw. waa loolu am na maa silencié ñëpp léegi nag xam nga loolu mën na ne mën nañu bañ a xam loolu xamuñu ni nuñ koy defee hmm. defee ni ah. ñoom ak diw toog la fekk ne wasaare nañ ñi la neex ñooy gis sa yooyu day am neexul da nga leen di bloqué <laughs> waaw loolu la wax na benn femme ba ma ko daan def su ma waxee mun ma yàgg sama nijaay koy gis waaw hmm. sama nijaay <laughs> <laughs> xam nga xam nga. Euh, des fois tamit soo bu nga eh, nga wax ne kii ah. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hmm. ba nga ko waxee estati ko yow ñu estati la ñu yàgg mu dégg nga dee parce que kooku mooy ëpp sa bopp. Ah, am na xam ne moom. am na ñoo ne mooy ëpp bopp. waaw waaw dëgg la maam da tàggee ñu tàgg la ñu tàgg la. ñu tàgg la. kii borom mbir la de ah. <laughs> te Serigne Saliou Touré nag kilifa gu mag la ca Thiès wax dëgg yàlla. ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax Touré mu gën fee yàgg lool te ànd ak ko wér gaaw balaa ma lay dagg Ah. ah nee nga da nga ah, la. non taf taf la wala nga ma la ko jël ko def. tëjal mbaama tëj tëjal ci yàlla. yàlla nañu yàlla yërëm kii nee may na ma de. non moom du moom mooy maye. xool am na sama sama benn cousin dafa gaañoo mooy ci Demba Diop bi noonu kii stade Demba Diop bi noonu. ñu mhm. mu wadd ñun ñun ñëpp ñu mu bokk ci ñu gaañu. Mhm. suñu benn cousin boo xam ne dafa rataxle dugal ko ci eh, WhatsApp. am na ñoo xam ni buñ gisee dëj rek dañuy dañuy dañuy dañuy waaw dañuy daanu man daal damaa yeewu ratatati ba pare rek tourné rek gis mu ni rek mu def salaamaaleykum maaleykum salaam ñu ngi leen di jaara jaare ah déedéet Baba Diouf mooy ñi gaañu woon stade Demba Diop mooy ñi ñi nga xam ne dañoo desoon ci loolu ah, mu def noonu mhm. te ñoo xam ne am na ñoo xam seen famille am na am na ñu mel da def loolu am na ñoo xam ne dafa ñaaw dafa ñaaw kon mi ngi noonu ñu dem ci deuxième élément bi nga xam ne nag président Sall xam naa jombul ak suñu yaay Marième Faye Sall suñ ko seetaanee daañu ànd ak euh, ministre ministre affaire étrangères defe naa mooy soxna sax voilà xam naa élément bii danañ ci danañ ci mën a bàyyi xel ma nga xewee ca Tunisie benn waaye ñu dem Modou dellu si waat siwaat asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki Afrique ñu ngi leen di nuyu euh, man Amadou laa tudd maa ngi fii si Tunisie euh, gis ngeen instant àll bi dëkk bi moo ko wër quoi waaw gis ngeen fii nii yëpp ay làmp la fii nii yëpp fii nii immeuble bii nii euh, banque moo fi nekk STB banque fii nii tamit am na banque fii nii banque Tunisie nii moo fi nekk quoi fii nii Amine banque moo fi nekk immeuble bu ngeen di seen noonu ak bii ni euh, man nag maa ngi fii si àll bi depuis vingt cinq février depuis bu problème bi xewee quoi. parce que le vingt cinq février ñun fu ñu nekkoon fee si Tunisie Bayor bi le vingt cinq février la ñu génnee euh, le vingt six lañ def marche bi man nag depuis boobu maa ngi fi si àll bi quoi fii laay fanaan euh, fii laay fee am na pont quoi foofu laay fanaan waaye fii laay yenn xam nga waaw donc comme ni ma leen ko waxee depuis boobu man maa ngi fi waaye man kese maa fi nekk waaw am na ñu ñu nag ñu nekk foofu waaye man dama préféré toog fii quoi parce que foofu si biir dëkk bi boo fa duggee policiers bu buñ la gisee dañ lay jàpp dem tëj la si kaso bi euh, naar yi tamit buñ la gisee dañ lay provoqué di la wax mooyu raciste xam nga loolu moo tax man ma ñëw toog fii nii bu ma soxla dara damay dugg nag si dëkk bi dem damay làkkatu tamit quoi dem dugg si bitig bi jënd lu may jënd gis nga ndox bi foofu laa ko jëndee ndox bii nii foofu laa ko jëndee ndoxu bii nii ndoxu tunisien quoi quoi foofu laa ko jëndee donc loolu moo tax man ma préféré. voilà mi ngi noonu muy muy muy lu metti loo xam ne xew na foofu ca Tunisie ci benn njiit loo xam ne xaw ma njiit lu mu doon xaw ma ndax dafa dafa dafa dafa dafa tàggook sagoom xaw ma daal mais sénégalais yaa ngi génnewaat ay image yu maa ngi gis Bambi keroog yónnee ma benn vidéo boo xam ne sax yàgg na mais lu ñaaw lu ñu ma saan def Tunisie ci lu mel nii ñu ngi koy génnewaat. mooy sénégalais boobu doon xeex ak euh, presque lu ma dix person te ñu mujj ko jam ci mbedd mu faatu gaa yi ngi koy partagé waat euh, te sax image bu yàgg la mais Omar euh, fu fii bu ñu fi tollee léegi damay laaj suñu maanaam suñu diplomatie ndax est-ce que crédible nañ ci biti réew ak ak yenn réew Afrique yi nga xam ne souvent suñuy doomi réew dañ fay nekk metti di dund dund bu metti te duñ fa man dara lu xew waaw man de moom loolu xaw na ma jaaxal nag maanaam fulla gi ñuy wan waa réew mi ak dëgër ak kilifteef ñu mhm. nguur gi di wan ba képp ku tëll rek ñu jàpp ne dal lay yar man mii tey bu mu fi waxoon na ko sudul noonu mhm. bu subaa samay tànk du laal suuf maanaam fu la ñi ñuy wan ni ñoom il faut que force reste à la loi mhm. maanaam il faut yoon di dox maanaam fulla jooju bu ko suñ nguur yi dañ wan bitim réew dina neex loolu maanaam euh, mbiri Le Pen rek loolu duñ ci wax mais mbiri Tunisie gii rek maanaam dafa laajoon fulla ak fayda ju mat sëkk comme ni ko réew yu bari di defee ci àddina mooy ambassade bi nga woo ko lu mooy lolle wala nga jëli say doom wala nga nga ni ko dellul sa dëkk mhm. wala nga jëli say doom ñu yëg ni ñoom ci doomu Sénégal yi lan bokk mhm. parce que li naan pucc a ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf mhm. doomu Sénégal yi lu tax jaruñu xeeb bu élection jotee ak bi ngay am la ñuy am mooy dañuy wote ci réew mi te lépp lu luñ jëlee ci biti ci réew mi lañ koy delloosi kon tey jii fu mën a ne mbaam gàtt na waaye ci góor gi la bokk. foo waroon laaj fulla ak fayda ju mat sekk. keroog la waa ñoom Guy Marius dem ci ambassade bi pour manifester mais da leen jàpp. nan ko mhm. duñ ko defee ci ambassade bu Tunisie. tey jii lii xew. Mhm. réseaux sociaux yi nag manipulation bi des fois day bari. Mhm. damay wax en général mais du mu wax sax ci lii parce que mun na am loo xam ne daaw daaw jéeg la am. ñu bëgg ko contextualiser ko indi ko mais Tunisie réew la moo xam ne moom bu la ken kenn bu yàgg ci. Euh, kii nu mu tudd boo di compter ci nit ku ñuul parce que de bari na ay nit ñu ñu am Tunisie mais pour nga gis tunisien bu ñuul yombul seetloo lool. Hmm. dañoo jàpp seen bopp pourtant seen dëkk am na ay nit yu ñuul maanaam même nit ñu ñuul ña doon ay tunisien sa dëkk ba sax yaatulul leen. si nagam ñooñu lan mayul jàmm ci réew ma. du ay doxandeem yoo xam ne ñoo fa ñëw doon ay immigré ñoom lay may jàmm mais lii lépp lu ko indi boo xosee booy bi ni mu toogee mooy suñu réew mi naqadi yu mu naqadi mhm. ba tax booy di gàddaay di dem pour man gisuma lu jar Tunisie yi mhm. yi di bàyyi suñu réew mi di fa dem maanaam ñun ñoo war a am fulla ak fayda gu mat sëkk mhm. defar suñu réew mi ba duñ soxlaati dem feneen mais malheureusement fulla ak fayda gi ñuy wan ñun saa su ne mooy force reste à la fulla jooju nga la waay nañ ko may ñeneen mais malheureusement ay samba àllar àll bee koy gërëm àll bi ñoo koy gërëm te danoo mën gan te jafee dëkkal man dama koy faral di wax maanaam gan bu jóge feneen wala ñu dem feneen mm. boo waxee ñu ne sénégalais sénégalais mais ñun ci suñuy biir dafa njëkke suñuy kilifa dafa mel ne danoo fal suñuy noonu kon lii du affaire diplomatie kon non non du affaire diplomatie daf ci bokk ful ak fayda mm. fulla ak fayda mooy réciprocité maanaam réew mu ne ni muy téye sa askan mu ngay téye askanam. Mm-hmm. ñi ay doomu Sénégal la yoo xam ne yaakaaru ku dul seen nguur mais na seen nguur génne ci lu ne comme nag am na yeneen réew Afrique yi am fulla ak fayda. Mm-hmm. jëli nañ seen i nit pourquoi doomu sénégalais yi nekk Tunisie dafa tumuranke ba tey ji di dund li ñuy dund tey ji mais loolu tey ji yow mënoo ko faj a ko faj mais Macky Sall ak nguuram ñoom ñoo ko a faj mhm. léegi nag lan moo waral taxawaay bu nooy bi ñuy nooy ci kanam man loolu lay laaj d'accord bu ci xajee rek ñu dellu si waat insha allah su kaa kon Omar ah waaw ne bu ñu xajee rek mu dellu si waat ah mais ah man de gi naqari dara moom yow ma la bàyyee da ngay temps bi saa du dëgg bu ci xajee kay ki lag bu ci xajee xam naa ne moom altine moom rendez-vous sëñ Baare altine moom il faut ñu ko faan la yóbbu la fa ba pare. <laughs> Ah, su kaa mu mel ni eh, kii brosé na ko. waaw influence dina am ci yu mel nii gaa yi dañuy profito dugalaale image yu daaw yeeg yu daaw jéegi <laughs> xe xolu sénégalais yi nekk fii di gën a métti waaw dëgg la euh, surtout xam nga affaire racisme moom loolu boo ko xësee ba wax ko ci benn affaire rek dafay doy waar ndax euh, euh, xoola président boo xam ne lii am na une semaine. Mm-hmm. am na une semaine si kon nit ñaa ngi dund lu métti pan na ñu nekk Tunisie dund lu métti depuis une semaine mhm. nga xam ne moom moo di njiitu njiitu réew mi donc mi ngi ci ay loo xam ne mhm. dafa war a jàppale ñoom ay xam ne dañoo jógee fii dem immigré ji mhm. donc bu nekkee ci ay tolof tolof li ñu war a def mooy bu ñu demee ci seen ambassade euh, dañ dan leen di génne wala ñu leen ñu boddi leen wala ñu leen def leen dara man li ma koy ñaan rek mooy ni que dafa nekk ci yoon euh, doon di wut li nga doon doon am lu mu doon wut te xale yi xale yoo xam ne dañoo am dañoo ambitieux dañoo am lu nu bëgg. Mhm. donc dañ koy wax ni ko euh, monsieur euh, Sall yi mhm. dama nga jëli say ñoñ ñi nekk Tunisie am na loo xam ne nit du ko bàyyi mu law. loolu rek la wax. kon mu jëli leen daal. waaw nañ ko dina leen dina leen jëli. d'accord dina leen jëli ndax am na lu bari loo xam ne may nañ ko naar yi te tey maa ngi déglu journal euh, li ñuy jaay ci ay. légumes yëpp fi mu ne mënuñu koo jaay póotu mhm. ndax dafa am superman kii superman lu ne te boddi sa réew bàyyi bàyyi loo xam ne mi ngi ci sa réew nit ñi di ko fi ji nga bàyyi ko di jël ci naar di jël ci naar yi ba waaye di wax laa te loo xam ne du du naka sulul ñooñu. mais Sénégal aussi day exporté de. noonu non non dara fi mu ne nii. sànq maa ngi déglu journal léegi mi ñuy jaay yëpp jaay ñu ci dara kon donc waa Tunisie ñoom ñu ngi nekk ñu ngi nekk sonn am ñoo xam ne na ay kii yoo xam ñu ngi fi di jaay seen affaire ñu bàyyi leen noonu kon xam kon sénégalais mën nañu muñ aca jërëjëf euh, Souka euh, Adja <laughs> noo gisee vidéo bi nga xam ni waa ji da nee na bu amee soxla day coomaayatu dem sàcc def li muy def ñëwaat ci àll bi waaw waaw euh, waa ji xam naa du sénégalais mais nag Afrique la wax mhm. man man loolu la gëm mhm. mais man démb ambassade en fait semaine mbay Bams dafa am rakkam bu fa nekk. mais yónnee na ay vidéo vidéo yeneen nit yoo xam ne ci sous région bi lañ dëkk. ñu ngi leen di xeexal ñu ngi leen di kii mais xale bi ci boppam nee na benn sénégalais bokk ci. Hmm. wax na ko léegi ci démb aussi. Hmm. ambassadeur bi wax na. dañu ubbi benn registre boo xamante ni lundi bi. Hmm. képp kuy doomu sénégalais bëgg ñibbisi ñëwal nga bindu pour ñibbisi. léegi kan moo lay indi. loolu ñoom ñoo lay indi état moo lay indi waa ambassade bi moo ko ubbi man seetaan naa élément bi journal. ñu ne ubbi nañ registre bi. képp koo xamante ni doomu sénégalais nga nekk fa bëgg ñibbisi ubbi nañ ko pour nga ñëw inscrire ñibbisi sa réew mhm. beneen bi ma am sam beneen xarit boo xam ne ay raqam dañ fa nekk Asu Njaay mhm. bi ma ko laajee naka rak sarak yi nu nun def mu ne ma nee nañu ñoom fanu nekk ak fi mbir mu amee bokkul sax sori mhm. nañu macha allah ñu ngi ci jàmm pour dire rek bu fekkee bi état bi loolu c'est avéré mi ngi ciy dox nañu gaawantu ñu bëgg ñibbisi ñu indi leen d'accord waaw loolu mooy solution jërëjëf Ajaratu Betty Mbuup suñu xel dem ca Oustaz Ndiaga Seck ca RFM waa dégg nañ nuyoo bi oustaz xarit la waa dégg nañ ko ñu ngi lay baax oustaz <laughs> jërëjëf alaaji mhm. xam nga boo dégloo élément bi defe naa ni am na loo xam ni yeggul mhm. eh, booy bi expliqué na wane na ni mhm. waa Guinée jël nañ seeni nit ñi ngi jël seeni nit di leen loolu waa Mali ñi ngi jël seeni nit waa Côte d'Ivoire ñi ngi jël seeni nit maanaam ñoom ñi ngi yóbbu seeni nit eh, mu mel ni ñun moom waaw la affaire yi tàggatee mbéb booy bi gis nga ko nee na mi ngi ne ca àll ba la ne wallaay wallaay eh, parce que munta jëp fi naar yi nekk mhm. maanaam mu nekk problème boo xamante ne bi moom mi ngi koy dund mu nekk mhm. problème boo xamante ni bu lool la mhm. xam nga Sénégal moom waaw dañoo gaaw ci def communiqué ne benn sénégalais amu fa problème. Mhm. ñëpp a ngi ci jàmm. Mhm. Euh, fekk ne. la nga xamante ni bii mooy dëgg dëgg mbir ma. Mhm. duñ ko faral di wax. léegi nag buñ ñu yóbbu jëli say nit. lenn la ci fulla waaw waaye fexe ba say doom it. bañ a sax xemmem di dem. ci réew jàmm loolu mooy li ëpp solo. foofu la ñu joxoñ suñu njiit yi nga xam ni parce que même ki jëli ji eh, dañu échec nañ quoi waaw yaa ngi dégg mais ñu fexe ba lu mel noonu maanaam tey bu ñuy dem ci yenn dëkk yi tey bu ñu ñëwoon <laughs> ah, américain baa ngay dem fële amul problème tey bu ñu ñëwoon saoudien baa ngay dem fële amul problème c'est parce seeni état hmm? waaw am na ñuy jàng am na ñoo xamante bi jàng moo leen fay yóbbu xam nga président bi après sax jubbantiwaat na wax waaw waaw mais wax ne ñi nga xamante bi mais bal ba tàkk na ba pare comprendre bal ba moom tàkk na ba pare euh, hmm. mais c'est que dama ne am na yoo xamante ni bii tey euh, su fekkoonte ni tey ji suñu réew yii doxal nañ ni ñu war a doxalee hmm. peut-être que ni li wolof di wax naan uude ni mu la gisee la lay ëwalee hmm. loolu danga koy gis ci mbir yi Mhm. maanaam Afrique gii sunu Afrique gi sunu dirigeants yi dañoo liggéeyut. waaw loolu seen ñàkk liggéey nag. Mhm. moom la population bi di sibir ba fi mu toll nii maanaam fu ñu dem duñ leen nawloo duñ leen respecté duñ leen jox cër ñoom ñooy jéem a def le tout pour jéem a ñafe sax pour dem bitim réew pour am lu ñu indi ci seen réew. Mhm. te nag loolu ñu waroon ko mën a ñafe fii par exemple nga gis ne. ñu naan la. dangay gis ay booy yoo xamante ni dañuy nekk Espagne di liggéey nekk ci tool yeeg yooyu. d'accord nga gis fii ci naan li ngeen di def fii bu ngeen ko def fii ana tool yoo fii liggéey ñoom dañu fi ñu ñu bayoon daaw ñu ngi nii su kaa ngi nii di. Saalum mënuñu koo jaay. ñi bayoon daaw mënuñu koo jaay. boo bayee sa gerte doo ko jaay boo bayee sa lii doo ko jaay. Saalum bay ñu ngi bay Saalum. waaw ña ngay bay doo ko jaay. Mm. ñi bayoon soble fii la bay seen soble def li ñuy def ba ñu def ci beneen soble kii ñëw ko soble mbay mi waaw dañuy tëj de dañuy tëj ay lambale bi bay suul soble boo demee lompul lompul gi ci Louga ca wetu géej sa doguma la lompul am na koo xam ne sama xarit la fa la dëkk damay wax ak moom saa su ne mais légume ba ma nga fa gadd gaddaara ku ko may sax lañu wax boo ci bëggee ma léegi léegi ñu koy wax ci journal bi loolu yéeme na de maanaam bariwul maanaam dafa am yu bari yoo xamante ni bii tey bu réglé woon peut-être am na ñoo xamante ne bii du ñu génn sax dëkk bi soxlawuñu ko waa dëgg la mais dafa réglé wul donc suñu njiit yi dañoo war a xam ni dañoo war a góorgóorlu ba tey nga xamante ni nit ñi dinañ am xemteefu daw si wutal si Sénégal d'accord yaa ngi dégg am na ay jamono fii rek léegi la Côte d'Ivoire sax xaw a arrière mais am na ay jamono Côte d'Ivoire Gabon. ñëpp fa lañ daan dem c'est parce que mi ngi doon dox di kii. Mm-hmm. Mm-hmm. donc euh, loolu mooy li nga xamante ne mooy suñu problème na gars yi liggéey waay. jaajëf jërëjëf Alaaji jërëjëf euh, yéen ñi doon bàyyi xel 75 la 449 23 23 75 449 23 23. ci appel bi di nga jot Baye Assane Mesere ci WhatsApp bi daa ma jot.